jeexale ak li nga xamante ni moo di présentation bi ak équipe boobu nga xamante ni moo di gambi ñoom seeni couleur bleu la rouge ak weex ñoom ñu ngi leen woowee les scorpions scorpion maanaam muy jiit ci olof jiit seen stade mu ngi tudd Independence Stadium classement FIFA bi ñu génn ñu ngi si jël 147e place seen coach mu ngi tudd Tom seen fit ki nga xamante ni moo di capitaine ba moom muy ngi tudd Pa Modou Diagne ki nga xamante ni moo ëpp lañ ko sélectionné Ibrima Ebou Silla 64 sélections meilleur buteur ba moom la waat aussi moom Ibrima Ebou Silla am na 21 buts rencontre officielle yi gën a historique yi nga xamante ni waa Gambie amal nañ ko bokk na ci seen premier match contre Guinée Guinée Bissau donte ñoom match bi may am ñoom Guinée Portugais lañ leen doon woowee waa Gambie ñoom ñu leen doon woowee bi britannique c'était le 2 juin 1952 ñi nga xamante ni ñooy waa Guinée ñoo jël ndam li 3 buts à en ndam lu gën nga ne loo xamante ni waa Gambie am nañ ko 7-0 la woon contre Lesotho 12 la woon défaite ba nga xamante jël nañ ko bu gën a nga ne contre Guinée la woon 8-0 14 mai 1972 la woon waa Gambie ñoom mosuñoo qualifié coupe du monde coupe d'Afrique benn yoon lañ ko mës a qualifié muy bii ñu dëgg man abonnéwul bi di seen football TV 14